salaamaaleykum internet ndakaar Dakar euh, ñu nuyu leen nag euh, ñëw ak yéen ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku euh, jamono bi ci Sénégal lu ñoŋal nag coowlu Ousmane Sonko ak aji saax ginnaaw nag bi coow lu jugee nemmeeku nañu ay arrestation yu bëri ci biir réew mi ñu féetee ci activiste yi ak ñi nga xam ne tamit ay pro Sonko lañu tey nag dañuy taxaw si jëmm ji di Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna nag ab acteur sociale la woon doon liggéey ci li nga xam ne mooy euh, ak euh, fi nga xam ne mooy euh, santé bi ginnaaw nag bu mu nemmee ko ay jafe-jafe ci làngu politique moom nag soobu na ci li nga xam ne mooy bi euh, bokk fële ci euh, rap euh, dégage jot nañu gis jaar-jaaram ci coow li mu tuddoo ba léegi ginnaaw coow li bu mu jógoon nag moom gis nañ ko soutien bi mu apporter kii di président Ousmane Sonko si noonee nag lañ ko mujjee teg loxo moom ak Assane Diouf nga xam ne mooy ñoom nag ñu leen di toppee li nga xam ne mooy association de malfaiteurs ñu njortoon tamit dañ doon doog waaj a amal ab uh, yëngu-yëngu ci biir réew uh, bi ginnaaw bu mu génnee nag këram uh, di jënd li nga xam ne mooy reer si lañ ko tegee loxo boobu ba léegi nag mouvement bi nga bu mu bokk di mouvement xàpp dégage ñoom nag boobu ba léegi noppiwu ñu di def li nga xam ne mooy ay manifestation ak li nga xam ne mooy point de presse situation bu ñuy wax ak yéen nii nag ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna fu mu nekk nii dañ ko dugal bërëb bu ñu ne isolatoire moom nag fu mu nekkee nag dañ ko futtee bu mu set dugal ko bërëb boo xam ne euh, bërëb bu lëndëm lool ba tax na ñi nga xam ne ñooy waa frappe dégage ñoom nag ñoo ngi sàkko di ñaan na ñu génne ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna ba tax na ñoom tax suba ci euh, àjjuma bi 5 mars ñu am ñu bëgg amal li nga xam ne mooy ab marche euh, pour libérer ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna ak li nga xam ne tamit mooy ñu nemmeeku ci euh, Ousmane Sonko boobu ba léegi nag coow li bu mu jugee ba léegi nag euh, noppi wuñu di bàyyi ki nga xam ne euh, di bàyyi xel ki nga xam ne mooy seen mboq boobu di Guy Marius Sagna nekk activist ñu nemmeeku tamit euh, xeex yu bëri yum doo xeex jëmale ko ci euh, franc CFA bi jëmale ko ci euh, ni ñuy doxalee réew mi ba tax na moom bëri na yoon yu ñu ko teg loxo ginnaaw yoo teg loxo yooyu nag buñ ci mën a mujj nemmeeku comme ni ma leen ko waxee mooy teg loxo buñ ko teg ko teg ay si ndoddam li nga xam ne mooy association de malfaiteurs si noonee tamit boobu ba léegi euh, gis nañu ñi nga xam ne ñoo féetee euh, ci euh, opposition bi ak ñi nga xam ne ñoo féetee ci frappe dégage dégage ak ñeneen ñi nga xam ne tamit ay mouvement citoyen lañu yor ñoom nag ñoo ngi ñaan ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna nu ma leen ko waxee tamit Guy Marius Sagna nekkatul ku ñuy présenté ci biir réew mi nu ma leen ko waxee woon moom ci wàllum santé la ko yëngu mais bu mu gisee jafe-jafe yi nga xam ne Sénégalais yi ñoo ngi koy dund sur le sóobee ci làmb mbokkum euh, politique bi bopp dubbee boppam euh, ab activiste bokk ci mouvement boobu mouvement yi mu jot a bokk nag bëri na mais si euh, dégage frappe lañ ko gën a xamee lañ ko gën a ràññeewee si engagement yi nga xam ne engagement citoyen mi moo ngi koy amal ci réew mi ak ci bitim réew ba tey rek ñu desandi ci li nga xam ne mooy coow li ginnaaw nag bu ñu tegee loxo ki nga xam ne mooy président Pastef Ousmane Sonko gis nañu tamit dëkk bi yëngu-yëngu yi amee yëpp euh, ñu leen di fàttali ko rek euh, suba ci àjjuma bi ñi nga xam ne ñoo fa rek ak euh, Guy Marius Sagna ak ñi nga xam ne ñoo fa waa mouvement Y'en ak yenn activiste yi ñoom nag namm nañu amal ab rassemblement bu rëy jàmmaarloo ak ñi nga xam ne mooy état du Sénégal si noonee nag ba tey ñu ñëwaat si ñi nga xam ne mooy la personne de si noonee tamit si noonee tamit la ñuy ñëwaat si jëmm ji nga xam ne mooy Guy maris Sagna comme nu ma leen ko waxee si sama njëlbeen ni wax Guy Marius Sagna nag nekkoon na ab soutien de taille ci mbir bi nga xam ne moo dal ci ndodd Ousmane Sonko moom nag gis nañ ko mu bokk si ñi ñi njëkk jug di xeex li nga xam ne kii di président Ousmane sonk moom teg nañ ko ci kawam maanaam li nga xam ne mooy viol bu mu def ci kaw xale bi di euh, euh, Adji Sarr ñuy fàttali rek ki nga xam ne tamit euh, mooy euh, Guy Marius Sagna gis nañu tamit engagement bu mu amoon lors de la présidentielle de 2019 moom nag jotoon na àndal ki nga xam ne mooy euh, président Pastef di Ousmane Sonko amaana looloo tax bi coow li jugee moom mu njëkk a magnifier li nga xam ne mooy soutien moom ci candidat présidentiel boobu bokkoon ci élection jongante yooyu en 2019 di Ousmane Sonko bi nga xam ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen coow li uh, bëri na uh, ci kawam dañuy des rek ci nga xam ne mooy uh, Guy Marius Sagna moom nag doomu Casamance boobu ginnaaw nag bu mu dundee ay jafe-jafe yu bëri ci wàllum bi bu ci duggee ba léegi gis nañu arrestation yu bëri yi nga xam ne nemmeeku nañ ko teg nañ ko ci kawam moom nag xeexam tamit bokk na ci li nga xam ne mooy yëfum foncier fii ci Dakar ak ci Sénégal li ko wër moom nag nekk na nit boo xam ne euh, ci euh, jafe-jafe sénégal yi lay euh, dox ba tax na rek ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla génne foofu comme ni ma ko waxoon njëlbéet bi isolatoire lañ ko dugal maanaam bërëb boo xam ne moom kese fay nekk te dañ koy futti bu mu set wicc fu mu nekk nii kay droit de l'hommiste yi ñoom la ñuy ñaan ñu jug ci mbir bi lee jàppale ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna bu mu génn si jafe-jafe yi ñu nekk ba tey tamit ñu desandi ci li nga xam ne rek mooy euh, li nar a xew euh, suba te ñu koy def euh, en faveur de ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Guy Marius parce que ñi nga xam ne ñooy France dégage ñoom tamit si manifestation booba dinañ ko wuute ba tax na rek ñuy wax internet Feeling Dakar yi ba beneen yoon ñu indi leen ay yeneen xibaar ñu indi leen ay yeneen nataal